li fi li fi jotoon mu xew dund dund fi ñëw waaye eh, ci processus électorale bi eh, tey aujourd'hui le président woote na concertation bu yaatu ñu dem waxtaanee anam bi muy tëggee sunu ay élection euh, mu yemook ay euh, parlementaires la société civile di waxtaan ci ay réformes ci système électorale bi ba joxe ci ay propositions yu am solo euh, bokk na ci génne lu jëm ci saytu parrainage ci ca conseil constitutionnel ak xoolaat ko ak yeneen i yu am solo est-ce que trouve nécessaire que aujourd'hui ginnaaw élection boobu ba ñu am président de la République yoon la ñu xoolaat nag suñu système électoral di ma nuyu euh, tous les leaders de la coalition Diomaye président fa la ñu la bokk également euh, damay répondre sur question bi mm. wane na rek ni le président de la République si waxtaana yëpp loo xam ça concerne la nation il l'a dit si discours am yëpp yu mu def Eh, waxtaan waxtaanee réew mi eh, comme que ñu ngi jëm ci ay élection également parce que risque de dissolution de l'Assemblée nationale le conseil constitutionnel xam nga saisir na ko pour demander ko avis il n'était pas tenu def na ko et système également électoral bi ak code électoral posé na problème depuis des années fii ci Sénégal am na yoo xam ni ki toog au pouvoir da koy imposer à la à l'opposition mais comme ni nga ko waxee ñu ngi teg société civile teg acteur politique yëpp. Mhm. ñu xool naka la ñuy trouver un consensus. Mhm. ci naka la ñuy des élections paisibles mais démocratiques mais surtout des élections transparentes. Mhm. et surtout efficaces. efficace. parce que xam nga ay organiser élection c'est très cher. ça moom xam nañ ko ñuy génn ci élection présidentielle. nar dem ci élection législative quasiment bu ñu defee attention dans la même année. 2024 euh, donc quand même disent que euh, élections locales yi war nañu xool ndax waruñu ko coupler avec les élections législatives pour éviter encore que le pays toog ci lu ñuy naan mhm. élection euh, permanente campagne électorale permanente mooy lu président Abdou Diouf doon mm-hmm. donc euh, dañuy xool rek la meilleure solution te loolu defe naa ni ñii ñu xam ne teg ko foofu ñu waxtaan si les acteurs mais également la société civile nu daañu proposer lu am solo est-ce que loolu mën nañu douter ci fiabilité a eu trois yoo xam ne avec zéro contestation on pourrait dire parce que amul kenn kuñ ci élire te ñu jóg wala une bonne frange de la population taxaw ne élection yi jaarul yoon et que ànduñu ci résultat yi. œuvre yàlla rek moo parfait. Mm-hmm. loolu moom il faut ñu retenir ko. donc euh, une élection parfaite à cent pour cent mënul am. Mm-hmm. il y aura toujours des petites failles surtout que nous sommes dans des zones yoo xam ne xam nga c'est l'Afrique mm-hmm. euh, ku toog euh, souvent a intérêt à rempiler donc bu la tegalee sax le jeu les règles du jeu su ko défavorable la xam nga discussion yu interminable lay doon mais ñu ñaan yàlla rek. consensus moo tax man la consensus foo ko dégg rek mooy y euh, nu mu encore des trucs réciproques yoo xam ne ku nekk dafa bàyyi dara donc euh, sur ce point na waxtaan bi ubbeeku ñu seet loo xam ne moo gën ci réew mi moo gën ci réew mi. loolu man loolu laa gëm. est-ce que vous êtes d'avis ci ñu organiser benn wala ñu créer benn organe de gestion euh, autonome pour l'organisation des élections. mais loolu mu ngi ci programme Diomaye président loolu la ñu présenté Sénégalais yi. Mm-hmm. nu mu encore Sénat ñu doon wax. léegi ñun CNEI la ñu proposé woon dans le programme la moo tax ñenn ñi dañuy nekk di projet projet alors que nous sommes partis aux élections avec li nga xam ne mooy euh, programme Diomaye président ku ko lire da gis les points yu ñu proposé woon Sénégalais yi. Mhm. ci points yooyu dañu ne nañu def benn commission électorale nationale indépendante et non autonome xam nga autonomie indépendance y a une différence. Mhm. donc li ñuy ñaan mooy commission boobu mu am une indépendance. dafa war a tegu ci ñëpp amul kumba am ndey kumba amul ndey euh, ñu bañ ko appliqué. alors que décision boobu c' est une décision en dernier ressort. Mhm. cour suprême rek la mënoon dem. Mhm. donc da nga koy exécuter a attendant nga ñu dem cour suprême. or ça n'a pas été le cas donc y a des petites xam ne war nañ ko seetaat. absolument Fatou également ci euh, tout à l'heure wax nga ko que le président de la République il était pas et pourtant demandé na avis du conseil constitutionnel mais loolu euh, dafa am lu ko jiitu muy conférence de presse bi mu doon def ak taskatu xibaar yi le président de la République moom waxoon ne lu jëm ci déclaration de politique générale bi am na waxtaan et que moom dalal na le président du groupe parlement le président du l' assemblée. assemblée nationale. ba fii ki fan mu joxe sax ne dinañu dajaloo ñoom les présidents de groupe parlementaire et noonu la demee ces présidents de groupe parlementaire def nañu seen conclusion. jox ko njiitu assemblée nationale moom mu jébbal ko la président de la république mm-hmm. alors est-ce que moom waru woon a tontu loolu avant que muy dem di demander avis conseil constitutionnel boo xamante ne dañ cay dissoudre assemblée nationale et bu boobaa son premier ministre du def déclaration de politique générale. Euh, Fatou question boobu am na solo waaye nag il faut se mettre dans un contexte parce que li ñuy def ñëpp c'est dans un contexte politique. dans un contexte politique. Euh, gis nga boobu ñu jógee ne nañu recon ñëpp reconnaître qu'il y a un problème sur le règlement intérieur oui ou non de ko aussi bien la majorité mi nga xam ne bu APR benn bokk yaakaar. Mhm. que yeneen groupe yi. Mhm. mais bu ñu reconnaître rek y a un problème te Sénégal yëpp ñu bokk man sama avis ba ma nekkoon seen place reconnaître que lii ñun député yi. ñoo fàtte régulariser un règlement intérieur lorsque le poste de député de de de premier ministre est revenu mais dañ koy changer rek nga xam ne si ñun la. Mhm. c'est la hauteur. et être républicain républicain mooy koo xam ni <laughs> réew mi moo ma sax mais bu fekkee da ngeen naan ñun duñu ko def au besoin même daañu dem toucher article 87 mooy lan ñun kenn dootuñu mën sax sax dissoudre dafay nekk résistance boo xam ni euh, c'est une politique politicienne moo tax kenn àndu ci ci comportement boobu mais ci base règlement boobu recevoir nañ ci un premier ministre mu def une déclaration no no no man gis nga il faut tamit comme ñu sonn soyons des légalistes. Mm-hmm. gis nga man am na fa ma nekkoon du ma ko tudd. Mm-hmm. sama tur coow rek ngay dégg mais kenn mënuma attaquer sur la légalité. Mm-hmm. xam nga fu may waxee. réew nag di koy teg ci li nga xam ni qui doit être le doit mooy ce qui doit être. bul ma ñëw ne kii defoon na ni du moom rek man tamit def naa ko du man rek il faut ñu xam ni les règles surtout fi nga xam ne moom mooy laboratoire du droit fu ñuy créer droit bi mooy assemblée nationale la loi ñu ñëw ñoom ñu koy jalgati. mais maître est-ce que aujourd'hui euh, am nañu volonté pour dem ci déclaration de politique générale parce que yaa ngi koy wax léegi ñun yaa ngi ne politique mais politique aussi dafay ànd ak volonté moom la ñuy wax volonté politique. maanaam mm-hmm. bu ñu bëggoon. tey ñu demaat soppiwaat assemblée nationale règlement intérieur boobu am nañu les méthode maanaam voies et moyens yu ñu ko defee aujourd'hui ces conclusions remises au président de la république mënoon nañu may yoon boo xam ne déclaration de politique général daal di mën a fixer date bi dem ci avant la dissolution xam nga fair play politique benn loxo du tàccu il faut il faut yow da ngay bëgg a doxal comme il le faut exemple bi ma jox léegi mooy y a eu blocage volontaire de certains léegi jot nañu